jërë ngeen jëf ci teewlu bi ami site internet réew mi TV li gën a ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek mbir mu doy waa moo xew foofa ca diwaan bu Pologne kii di Aly Ngouille Ndiaye nag dañ moo xamante ne rek dafa ñeel blanchissement d'argent ne rek moom mooy ca yoon moom nag la mu daal di xam ne rek mooy kii di Aly Ngouille Ndiaye nag jot na rek ñu daal di koy déglu comme nag ni ko suñu yéenekaay bi di Le Témoin biralee moom nag nekk na cadre boo xamante rek ci ab enquête d'argent nag lañ koy toppee maanaam daa blanchiment d'argent moom la def ak nattaangoom yi di wuyoo ci turu Kristen Toff Jalonine Toff ak Jean bu ñu mu daal di dara rek ñu ngay rek mu indi ci ay leeral waaye nag àdduwul a yoon ci boobulee mbir ñu fàttali leen nag ki nga xamante ne rek moom mooy ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy groupe polonais yi di la ki nga xamante ne moom mooy yóbbu nañ mbir ma ca police waaye nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci boobu les journal nekk na entreprise boo xamante ne rek euh, ni ki 2012 dafa sàkk woon nag ñu investir bu baax nag ci li nga xamante ne moom mooy wàllum phosphate fii ci Sénégal mu nekkoon nag mbir moo xamante ne rek dañ doon def app campagne boo xam ne polonais yi ci boppam sax ñoom ñoo ko sàkk woon bu ñu dippee DGG ak Ecodactyl waaye nag ci xayma rek 600 millions euros nag la waroon na doon waaye mu door a toll nag ci 400 millions de francs CFA yoo xamante ne rek Action groupe waroon na ko dugal ba say rek bu ñu sukkandikoo ci yooyu les sources la ñu daal di xam ne rek mooy procureur bu polonais dafa daal di soupçonné nag kii di Aly Ngouille Ndiaye na nag nam doon dugalee yooyu les koppar nag jaaduwul woon benn yoon maanaam daal dafa amoon ab njuuj njaay waaye nag sàkku woon na ni ki mois de mai 2020 daal di jox convocation kii di Aly Ngouille Ndiaye ngir nag mu indi ci ay leeral waaye nag Aly Ngouille Ndiaye yeeyul yàbb ci nag benn yoon ñu fàttaleem ci boobule jamono kii di Aly Ngouille Ndiaye moo fa nekkoon ministre industrie des mines ba tey rek bu ñu sukkandi sukkandikoo ci yenn kaay bii di la quotidien ne nag ancien ministre ba woon dafa waxoon ne rek dina ci réagir waaye nag ba nagani rek ma nga mayee ak organiser waxul ci ci yàb ci waaye nag bu ñu moytulee rek mbir mi nag dina yee bruit bu baax fii ci Sénégal ñetti at a ngi nii rek ñuy delloo boobulee convocation ba tey rek ñu fàttali leen kii di Aly Ngouille Ndiaye nag dafa nekk nag ni candidat ci élection présidentielle ñu doon ma ci atum 2024 waaye nag nee na daal du ci yey du ci yàbbi ku xam ne mu nu mel nag dina suñu